ah Kiné Sakho Kiné Sakho barki bi yombal xaamal akabar la seer yaa ngay commencé la yaa ngi ci terrain bi mi ngi muyi muyi xam nga muyi muyi mayi mayi <laughs> naar yi ñi ngi koy jël ci bët ñi ngi koy jël ci lamañ ñi ngi koy jël maanaam barki bi man xaamal akabar maanaam ñaari sii ci mbii ci russe yi naar yi xuur yi naar yi sax gars yi dañ ciy teg ay <laughs> mi ngi neex noonu la rek ala accu rek fu ñu ko mën a xam rek nga ko fa sabañ ah Kiné Sakho ginna saaxo barke bi yow man xaamal ak kabar laseer yaa ngay commencé laseer yaa ngi ci terrain bi mi ngi muyi muyi xam nga muyi muyi mayi mayi <laughs> naar yi ñii ngi koy jël ci bët ñii ngi koy jël ci lamañ ñii ngi koy jël maanaam barke bi man xaamal ak kabar maanaam ñaari sii ci mbii ci russe yi naar yi fuur yi naar yi sax gars yi ñu ngi ciy teg ay <laughs> ngi neex noonu la rek ala accu rek fu ñu ko mën a xam rek nga ko fa sabañ